cinquième édition huitième édition ñu ñaan yàlla mu def ko édition yu bëree bëri euh, bu ko defee ñu taamali jotaay bi ñu jox imam baylaat yaa imaam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعونك يا معين وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أفضل وأقرب وأحب وأقرب إليه من خلقه وعلى آله وأصحابه وخلفاء العاملين المهتدين رضي الله عن قطب المكتوم وبرزق المعلوم تاج العارفين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم مولانا أبو الحباس أحمد بن محمد سلام التجاني رضي الله عنه mbokki Ndakaaru mbokki gox bi yaakaar naa golf la unité deux góor ak jigéen mag ak ndaw ñi fi teew ak ñi fi ñi fi dëkk ak ñi fi dikk yéen ñëpp ñu ngi boole baat yi nga xam ne moom lañu yàlla jagleel muy jàmm ak yërmaande ak barke assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa yooyu lim làmbu yàlla nañu ko yàlla boole defal ci barke weeru koor wi nga xam ne dañ la woon awaluhu rahma awsutuhu maxfira axiruhu itqun kon lépp lum làmbu yàlla nañu ko yàlla boole defal di profitoo di leen ndokkeel ci weeru koor bi di jaam yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu woor te dëgg ci jéggal suñu rëcc rëcc te may ñu fekkee ko ay ati at at mu ñëw rek insha allahu dàq moroma bi jaay rasulillah ah ñu teew fii nag teewal fi suñu kilifa xaj na ñëw na sax waaye dañ koy jiitu ci jotaay bi ma ne ñu dem leen defal ma waaye nag dama defal ma am na lu ko dàq ñëw toog ne defal ma moo ko dàq waaye comme que noonu la demee te dañ naan dañuy wax ne inna rasula bi xadri mursal waaye bu ñëwee ba toog xam nañ ne fa laysa bi miqdaari sayxika kon nag sant lañu def li nga xam ne mooy tàmbali jotaay bi kon bu ko defee ñu jàng faatiha ñu jàng ko jàngin mu sell faatiha sell na ba noppi dañ koy jàng-jàng mu sell ñu jaamoo ko yàlla nangu doon jaam delloo yàlla nguuram teg ci ñetti salaatul faatihi salaatu bu waay man ñu def ko xaddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi xam ne moom la woykat ba waxoon ne man ataahu min xayrika laa yadxul bi muy buntu yàlla ku jëm ci yàlla ci jaaroo ci yonent bi doo dem kon nañ ko jaar foofu def faatiha bu sell jàng ko jàng bu sell ñetti salaatul faatihi jokkaat yi yonent bi ñaan yàlla jotaay bi ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp loo xam ne yiw la ak barke teraanga yàlla boole ñu ko doppi ñu ko ci gox bi ci Sénégal xaj na fépp bi jaay rasulillah bismillah allahumma iftah alina abwaaba la ilaha illa kama fatahta ala la ilaha illa أن تنزع قلوبنا من علائق الشيطان أن تنزع قلوبنا من علائق الشيطان وثبت قلوبنا على الإيمان بحرمة لا إله إلا الله وثبت قلوبنا على الإيمان بحرمة لا إله إلا الله بحق بالحرمة وبركة ذكر اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وقوة أرواح وخرابها الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم فلا تلقى يشرب النار بالكريم سماء وتفضلا منك بجاء الهادي ما جعلها إلى أحوالك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على من لا ينابه الأحد القاهر فوق عباده إلى أبد وصلاته وسلامه على محمده الخلق صاحب صريحته والبرهان الله وبركاته Kenapa kita kayak ini julid sang sang sëñ bi sëñ bi moom gudd fan rek lañ koy ñaanal macha allah gudd fan rek lañ koy may mu taxawaay nga xamante ne wax dëgg yàlla fi nga bëgg a yëgale dina yàlla la ko yàlla yombalal may ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ziyaare waat ñëpp di baal waat ñëpp ak macha amin yaa rabal alamin yaa sayda alimatu koor ñu ngi lay ñaanal yàlla yaakaar sa taxawaay ci daara yaa Aïcha su ko defee ñu yaa jox yaa imaam Oustaz Mouhamed Mbaye أعوذ بالله من الشيطان العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين طيبين طاهرين أما بعد mbokku jullit yi mbokku taalibe yi yéen yépp ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi ñu yàlla boole walees doy nuyoo yépp te benn nuyoo ëpp ko muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di santaat yàlla bu baax moom ñu dimbale bañ teewaat ci jotaay bu mel nii ren di suñu huitième édition di ñaan yal nañ ko yàgg a teewe ah di ñaanal nag suñu papay daara pa Mansour Sow yal na ko yàlla xare àjjana fam nekk ko gënal fii mu ndax taxawaay bu rafet la amoon ci daara ji di ñaanale suñ beneen papay daara papa saaw di papay daara daara ihsan bu cité fadia moom it yal ko yàlla xaare aljana ak mboolem waaye dawle yéen fa fekk di ziar nag yaa seeda ndey maama Camara présidente mi nga xam ne moo samp daara ji Thiès Dakar Dakar Thiès lii lépp moom la kon Camara yal yàlla guddal saw fan dëgëral sa taxawaay di sant suñu yaayu daara yaa sayda fatimata bintu yande fay borom puso jamaa bi day ñëw rek dal na yàlla guddal fanam di sant waa daara alxaq ñépp nag macha allah góor jigéen mag ak ndaw di sant it waa daara al bu cité Fadia di suñu yaay daara ñoom ñëw nañ macha allah yàlla dëgëral taxawaay bi di ziar daara al sabr bu cité di jël ziar gi di ko teg ci loxo yaa seydaa Ami Ndour macha allah mu ngi ci jataay bi di ziar waa daara cité yépp di ziar waa daara yaa Aïcha di jël ziar gi di ko teg ci suñu loxo yaayu daara yaa Seyda Kiné Ba ñoom ñu ngi ci jotaay bi mboolem daara ñu yore yépp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal tawfiq ànd ak taysir di ziar yaa Seyda Alimatu Koor mii nga xam ne macha allah moom it euh, liggéeyam ci koñ bi am na solo ci daaraam ji yal na ko yàlla barkeel di ziar suñu imam Baba Gaaj ak mboolem waa jàkka ja jàkka Ousmane Bun Affan ñëpp. ñu ngi leen di ziare bu baax a baax ci teewaayu Abdoulahi Ñing macha allah di ziar suñu wëllëre Ousmane macha allah euh, macha allah yaakaar naa xam ngeen ko bu baax képp ku ne ci jataay bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax di ñaanal nag suñu yaay Adama Dieng yàlla guddal fanam dëgëral taxawaayam ak mboolem njabootam macha allah di ziare njabootu Mbengue Sène di jël ziar gi di ko teg ci suñu loxo kilifa. sëñ Basiiru Seen macha allah yàlla guddal fanam dëgëral taxawaayam di ziar waa unité 2 ma dëkk góor jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di sant di leen gërëm aw ma seen fay waa Golf Sud yéen it maa ngi leen seen taxawaay rafet na waa unité 1 maa ngi ziar ñëpp di beral nag nuyoo sama turandoo waa Modou Seen mu ci jotaay bi loolu nekk mbégte ci ñun macha allah ah imaam saar jóge ba jagle muy Abdoulaye Sarr nga xam ne bañ demee di jàngi moom mu ñu doon téye ci loxo di ñu teete di ziar ak Babou Faye macha allah ñoom it ñu jóge ba jagle di ziar xalifa ba Mouhamad Abdoul Wahab Gueye yàlla guddal fanam di ziar waa Sokone gépp di ziar nag suñu imaam ndaw nga xam ne moo nekk fii ci quartier bi macha allah di fi liggéey lu am solo ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam dëgëral taxawaayam. soo màggee dafay ma ko mu demaat sama papa ne ma ani sa maam mu ne ko moom foofu toog ci ëtt bi moom ak yàlla kese ñu ma lum la wax mu ne ko bu gis ne ni ko def nii tey su ma ma fayu ko ko sama papa ne hé nañ gaaw dem dër ji maam ñu dem kon nag lii laa leen andi la loon sensibiliser ci seen comportement envers seen waajur surtout seen waajur bu jigéen moom moo leen ëmb ci biiram bi pendant neuf mois kon nag lii laa leen andi looloon sensibiliser ci seen comportement envers seen waajur wasalaam. takbir takbir waay takbir am solo muy xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama xubu watoni min al imaani yeneen ci yàlla bu tedd bi nee na bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk bëgg sa réew gëm yàlla la bokk bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk. Euh, bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk kooku yonent bi moo ko jàngale kon nañ bëgg suñu réew yal na yàlla guddal saw fan dëgëral sa taxawaay kon ñu dalal sëñ Ousmane Ndour Ousmane bismillah. asalaamaaleykum mbokk yi man la Mouhamed Ousmane Ndour sëtu Adam Dieng ak Sadaka Ndour. macha allah beneen laaj bi kii na da doon julli timis timis trois raka la moom mu juum def six raka muy laaj nu muy def juróom bi yàqu na ndax dafa doublé macha allah takbir kon képp kuy julli soo jublee julli bi julli bi imaam bi day sari sari ci kaw mu jaaxal lool ñu bëggoon nga leeralal ñu xutba bi moo tax takbir kon macha allah kon xutba bi moo tax fàttali ko waay takbir macha allah yàlla yàlla du ko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 وأنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية صدق الله العظيم. boppam jullit yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci ñi nga xam ne ñoo jiitu ak ñu mujj yal leen yàlla defal jàmm defal leen aafiya te xaare leen àjjana kon nag mu armeel armel mu na ñaanal ñu fa tëdd da nga xam ne lu mu yàgg yàgg ca armel ya rek lu mu yàgg yàgg ca armel ya rekk lu mu yàgg asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fi amaanillah yawma said takbir taxaw xoola boobu kéemaan xanaa xamoo ne doomu jël ndox reyu ko te teel sëy mooy taaru jigéen kon mbokk jullit yi nañ leen teel a may xale yi ñu sëy balaa gàcce yi duñ ci dal ana Mariama yaayu Insa nga xam ne à l'âge de 13 ci la am doomu muy Insa ibnu Mariam nga xam ne jour bi ñu ko ëmbee ci jour bi ci la ko wasin liir bi juddu di wax yàlla yónni ko mu nekk yoon yonent yàlla bari Israël kon lii ku mu yéemul xam nga lan moo lay yéem bu jugee naan mariage précoce dafa araam dañu réewu jullit lañ nekk waaye attewuñu islam réewu jullit lañu nekk dañu attewoo lu leen nekk ak leen arrangé waaye lii diina ji moom li yàlla wax ku ko fi bàyyi rek gis leneen kon bokk jullit yi lii laa leen fi indiloo lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci sama jëm ju xeebu ji la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. santaat yàlla bi mu ñu mayaatee ñu teew fii ñuy sant yàlla di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ziar ñëpp di leen balu àq di leen bal àq ci weer bi di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla yal nañ ko yàlla nangul kon tey dama leen indiloon benn thème bu am solo muy dimbalante te yàlla rek a tax ñu gis ne jamono jii ñu nekk ci mim réew dimbalanteetuñu te yàlla tax ah ci ñu bari ci nit ñi bokk ndax am na ci ñoo xam ne bu ñuy dimbalante dañuy dimbalante ci tur maa def lii pour ñu lay tudd walla ñuy dimbalante ci noonoo dimbalante ci noonoo nag mooy tey maa ngi yaa jaara ñoo bokk benn kër di sëy yaa jaara amaana dooleem demewul noonu moom wujj bi wala peccorgo bi di def lu mu yëkkati jox goroom pour mu koy gërëm di xarab yaa jaar di ko tagg di ko taasul di ko wayal lépp rek pour muy xarab yaa jaar kooku li muy def yàlla taxul kon mbokk jullit yi ñu delloowaat suñu xel ci li yàlla wax ne wa taxaawanu alal birri wa taqwa wala taxaawanu alal ismi wal udwaan suñu borom nee na su ngeen di dimbalante na ngeen dimbalante ci mbokk wala ngeen di dimbalante ci ci sant yàlla ci sant yàlla nga gis ne xew day am nga gis kiy ñëw ne day def lu nekk mu dugg ci lu nekk mu def ko mu bari lool te duggeewu ko lu ne day daaneel daaneel neer fay wala day daaneel fajjaaj ani yàlla dafa dem ba ci dëj yi dëj day am famille bi ñëw indi un million des familles ñëw indi trois cent mille ñuy laaj famille bi nag li indi ñu ne famille bii de vingt cinq mille la ñu indi ñëw daaneel lañ ko def bàyyi leen foofu rek ana yàlla te lépp looy def te yàlla taxul mënoo cee am yàlla day leen def te yàlla rek tax ñu dimbalante te yàlla tax lépp looy def yàlla taxul munoo ci am mukk yàlla doo ci am yonent bi ak lu jëf ji bëri bëri bëri doo ci am yàlla doo ci am yonent bi te léegi suñu Sénégal bii war nañu delloo si waat suñu xel delloo si waat defaraat jikko yi ndax da dégg ñu naan jamono dafa yàqu déedéet jamono du yàqu te a yàqu ndax fa jant bi daan soye fa lay ba tey fa ñuy fenke fa lay fenke ba tey kon jikko yi ñoo yàqu moo tax suñu borom ne laa tës bu dëhëra wa laa daahu bu leen ngaan ni mokk jamono ndax man muy maay jamono jëf-jëf yi bëri na li ñuy def bëri yàq gi bëri na nañ leen delloowaat suñu xel léegi dëj dëj am da ngay ndax jëf ji da ngay am kersa da nga naan ndax ñun ñii ay jullit lañ dëj day am kii yëpp na dëj bi lay dem nga gis ko mu daal di xotti ñawlu may ko tagalu nga gis am na ñoo xam ne sax dañ ciy teg seen noir gërëm fumier noir fumier gàddu seeni saag na dëj lañu jëm kon mbokk jullit yi nañ leen delloo si waat suñu te duñ fa nekkee lu dul wax lu nekk wax ju ñaaw coow jëw rek lañ fay nekk duñ fa jëlee dara dara lu dul bàkkaari kese kese kese lañ ciy jëlee yàlla nañ ci yàlla mu sol kon mbokk jullit yi lii laa leen indiloon ci dimbalante te yàlla tax ah, may sant nag suñu ustaas di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko saxal gën a yaatal gënnam bàyyi ko njabootam asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. biir yaa sayda yaa jaara sekk. Thank you. mbokk jullit yi muuraay nag ku ko dégg xel dem ci kol te ku ne kol xel dem ci ibaadu ba tax na yàlla ne ci alquran wa ibaadu rahmaani hum allazina yamshuuna alal ardi xawlan wa idaa xaatabahum jaahiluuna xaal salaaman ñu bëri nag dañu foog ne ibaadu ci colin la déedéet ibaadu ci jikko la ndax ibaadu day ragal yàlla ibaadu bu sel di jëw du sos te du dugg ci li yoonam nekkul ndax baatu ibaadu rahman mooy seeti jaamu yàlla bi ba tax na yàlla waxaat na ci alxuraan yaa ayyuhan nabiyyu mooy màndarga bi tax nit mën a xàmmee jullit bu jigéen la bi ñu gis jigéen yoo xamante ni nii dañu jël kon yu yaa koloo ko ba pare dugg ci julli te loolu boo ci jullee sa julli nangu am na jigéen yoo xamante ni tamit dañuy nekk ci seen muuraay ñu am jëkkër ñu dem sëy seen jëkkër mu réekuloo leen teg ci di leen jëndal ay nees ak ay cheveux naturel loolu teguñu ko fenn yéen góor ñi boo leen amee soxla bu muuru li ci dëkk ci sama jëmu ji la yàlla ñu yàlla nangu suñu koor di ñaanal ustaas may yàlla yàlla ñu dal fanam maa ngi leen di ñaanal kooru jàmm jërëjëf takbir yaa Seyda Fatou Diallo ñu woo yaa Seyda Binta Diagne saani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu tey kattanal man bu ma fi rawee conférence bi ren ren nag mu ne bu am solo ñu naan ko jaasiir yéen mbokk yi ana lan mooy jaasiir yàlla suñu borom ba bind ay jigéen parce que fii ci kaw kër ñii loolu borom kër am ñu am doom ci sëy bi ak fu ñu mënti dem ak fu ñu ñu am doom ci sëy bi ndax yaa loolu ci ñoom da ko ba nga ko sax yéen mbokk yi ana yàlla ana yàlla yéen mbokk yi ndax dañoo doon may sa bopp billaahi doon ñaan ba moo tax ala suñu borom ñoo xam ne moom rek mooy maye wala bi sama waati wal ardi dafa jigéen boo xam ne wala ko yaa saara sax boo soxla ci kan wala ko daal Ibrahima dafa ku ñoo xam ne la yow yaa Ibrahima xalil la wala faj daal suñu borom wala soo soxlaa kooku saara sax du ba am quatre-vingt-quinze heures am na solo kon wax ba ci biir ko neexee li ko neexee moom may ko doon jigéen ñi ñun ñooy yaay ñun ñooy njëkk kon ñun ñun dañuy moytu bu yàlla doon suñu kër yi mu am fa ay xam ne amuñu doom wala góor yoo xam ne amuñu doom loolu loolu may jàmm nga xam ne استطعنا مولودة تجاهل ki koy jaay am na cent pour cent baakaar ki ñu yoon mu dem jëndi am na cinquante pour cent baakaar ki ñu romb mu ngi toog ne ko ay eh, xam nga fu ban bi ci kay jaay sigari nga ne ko tàllala nga jàll ko daan na trente pour cent baakaar kon mbokk yi ngeen xam loolu jarul jublu yéen ndaw yi yéen lay waxal bàyyi leen sigari yàlla da koo xaraamal yonent bi xaraamal te sigari soo ko xoolee moo gën a seer kilo ceeb paquetu sukar moo gën a seer kilo ceeb ñaareel gi soo koy tuub ba dee fekk la si balaa ñu lay lor day génn ci sa yaram bi fépp yow foo xalaat rek sukar dina si génn ñu delluwaat la rob la nga jàkk ñu jàkkaarloo la ak penku ji suuf si la nga jox fépp gannaaw allahu akbar mbokk yi loolu loolu lu jar a lu bar jar a bàyyi sa xel yéen ndaw yi ah maa ngi koy sama bopp te samay waa kër di leen ñaan ngeen bàyyi cigarette ndi ñu rob la jox sa kanam pér suuf si dellu la jox sa nga jox fépp gannaaw ah loolu de te li si gën a doy waar da dem koor jot ñu ne allahu akbar dog jot na dogkat gi moom yàkkamtiwul dara dogeewul tàngaat tàngar ma dogeewul ndox mu tàng waaye mu ngi yàkkamti kos alma bettak ci sira rek kon xam ne loolu baaxul li wax ne soo ko tuxee nga am cent pour cent bàkkaar yow nga ngeen doo gis ngeen doo mar amuloo tuyaaba ndax ngay am 100 pour cent baakaar ah, loolu de baaxul seetaat leen ngeen bàyyi cigarette yàlla da koo xaraamal yonent bi xaraamal ko te tuxkat boo gis lekkal dugal du joxe santé day yàq kumu mbokk yi ah di nga gis kër yoo xam ne dañu naan allah tubaab dog jot na ñu toog ci seen biiri njaboot. naan soxna si eh jox li ma almet bi waay mu daal di kos yow foofu looy jàngal sa njaboot benn liñ la naan dafa baaxul xaraam na yow ngay wan sa njaboot ni man damay tuuf ci seeni biir ñu di la gis kon mooy dama tuufi moo koy leen di ñaax xam ne sigaret baaxul nañ ko bàyyi lu yàlla xaraamal dañ koy teg fii bàyyi ko li mu santaane ñu teg si suñuy tànk nag jëm koo def mbokk lii nag laa leen indil atum ren jii lu si dégg nag ah suma gàtt àlluwa la li si jub subhaanahu wa taala la di nuyu sama ustaas di ñun waa Daara Arxaq di ñun waa baas bi yëpp. yal nañ ko fekkee ak yu bari bari bari rafetem fekkee yàlla may ñu ak wérle ak gudd fan bu rafet asalaamaaleykum wa rahmatullah taala takbir masha allah yaa Seyda Fatou Diané yal na yàlla yàggal sa taxawaay ma fas yéene indi leen benn saar bu am solo muy surat mulk mu bokk ci téeméeri saar fukk ak ñeent lu nekk mu nekk ci alxuraan te moom rek la ci yàlla tànn tuddee nguur kon nag yàlla mi ñu woon moom rek mooy buur te mooy joxe nguur moo koy jox ku ko neex te moo mooy moo koy nangu waxtu bu mu ko neexee kon nag yéen mbokk yi nga xam ne dañ leen xabar nguur bàyyi leen xel ci lii ndaxte képp ku mu jox nguur lu mu yàgg yàgg yàgg dina ko nangu te bés dina jot mu taxawal la ci kanamu jaam yëpp laaj la nguur bu mu la joxoon naka nga ko doon doxale kon buur yi bàyyi leen xel ci lii buur yi ragal leen yàlla buur yi am leen yërmande ci kaw ñi ngeen jiite ndaxte kat bés dina ñëw muy garaw yow mal xiyaar képp ku jiite kenn ku ne di nga taxaw ci sa kanam borom mu laaj ni nga jiite naka nga ko doon doxale muy président bi nag di ministre bi di député bi di maire bi di di di directeur société bi di jàngalekat bi di imam bi di borom ba ci ñi xam ne dañuy jiite ay tonti képp ku jiite na nga xalaat ne dina taxaw ci sa kanam borom mu laaj la ko kon nag mbokk yi ah man de maa ngi ñaax sama ko di leen ñaax di wax na ngeen dellu ci sunna Muhammad ak alxuraan te alxuraan waxu yàlla la te yàlla du waxantu de mbokk yi bu loolu jàlle nag ma ñëw ci tafsir bi bismillahi rahmaani rahim tabaaraka barkeel na alladi yàlla mi nga xam ne bi yadihi ci ay loxoom la nekk al mulk nguur wa huwa yàlla boobu mooy ki nga xam ne ala kulli shay'in lépp loo gis xadiiru am tan na ko alladi mooy yàlla bi nga xam ne xalaka moo bind al mawta dee wal xayaata ak dund li yabluwakum ngir mu nattu leen xool ayyukum ana kan ci yéen ak sanu moo gën a baax am amaala jëf wa huwa yàlla boobu mooy ki nga xam ne al aziz mooy ku tedd ki de alxafuur te moom rek mooy baal bàkkaar amul keneen kuy baale bàkkaar ku dul moom allazi mooy yàlla bi nga xam ne sabha samawaatin moo bind juróom-ñaari asmaan tibaaxan yu tegle maakara gis lootu doo mos a gis fii xalqi rahmaan fi yàlla bind min tafaawutin ñu ci juyoo ñu ne li mu def nii nii la loolu du mos a am faxdii derul albasara ca xool ba alqara doo mës a gis muy futuuri benn bën bën yëral yëraat xoolal xoolaat ci kanam ci gànnaaw càmmoñ ndeyjoor doo mës a gis fi ñuy wax ci asamaan fii bënn na wala fenn na mi ngi waaji daal loolu du mësam ba keroog yow mal xiyaar sadaxallaahu mbokk jullit yi lii indi loon ci tabaaraxa bu jubee ci suñu borom subhaanahu wa taala bu dëngee ci man mu xeebu mii la ak sama gàtt xam-xam maa ngi ñaan ak sama borom subhaanahu wa taala lépp lu ma ci juum yàlla ma ko yàlla baal lii ma lay wax nag sama sëriñ waxu ko de man waxuma ko sama ndey waxul sama baay waxul ci alxuraan lañ ko tibbe te alxuraan waxu yàlla la yàlla nañu yàlla may dégg bu ñu déggee ñu jëf yàlla may ñu ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqim yàlla may ñu gudd fan ak wér gu yaram ci diine dee ci lislaam salaamaaleykum asalaamaaleykum comme ni ñu leen waxee rek saa su rek mbokku Salam Vision mbokku Sénégal comme ni leen koy waxee li nga xamante ni tey moo fi am ci këru diini ci këru lépp tey ñu ngi Parcelles Unité 2 tey suñu yaay ji ngeen gis tey ñu jàkkaarloog moom tey dafa wax wax ju am importance wax ju am importance bi mooy lan moo ci wàllum cigarette ci wàllum cigarette boobu noonu actuellement ni toj na réew mi ndax ku jug moom lay def ci mbokku Salam Vision man may kii taxaw tey ji di ko laaj sama yaay maa lay siyaar Ah, nangu naa siyaar yal na yàlla boole siyaar waaw ah. naa ngi nuyu bu ñu subhaana wa boole mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa ah man de maa indi woon thème muy cigarette cigarette nag ba ñu xool jamono kii ñu toll ndaw yi léegi ñun si bëgg a yàqu presque yàqu nañ sax di nga gis xale bu tuuti mu ngi làkkatu di tux cigarette waajuram yi xëy na xam nañ ko mbaate xëy na yëgguñu ko waaye xale bi day fexe fexe ba am paquetu cigarette am di ko tux te cigarette baaxul santul yàlla cigarette képp ku koy tux rek am nga 100 pour cent bàkkaar ki koy jaay am na 100 pour cent bàkkaar ki ñu yoon mu dem jëndi ko am na 50 pour cent bàkkaar bi ñuy laajte sax ne la yow xam nga ban bitik la ñuy jaayee cigarette nga ne taala la nga jubal foofu nga jaayi cigarette am na 30 pour cent baakaar te yow nga ne jullit nga sa njaboot gi jullit lañ nga bàyyi leen ñuy tuur cigarette baakaar yooyu yëpp seet ko du du fii de fi ñuy dem ñaareel gi nga ñu xoolaat ko te wéru ti problème wér gu yaram sigaret joxewul wér gu yaram képp koy gis muy tuux sigaret rek poumon yi yàqu na képp koy gis muy tuux sigaret rek am na lu muy ànd ak muy yàq dara ci yaramam kon donc jarul jublu loolu jarul jublu loo xam ne benn soo ko defee yàlla dina la si bugal ñaar doo si am yaram ah, kon léegi nañu ñaax njaboot yi di waxtaan ak njaboot di leen tere sigaret borom kër yi tamit yàlla xiir lan si ñu delloowaat seen bopp delloowaat ah, seen bopp ci seen borom xam li yàlla tere dang koy bàyyi lu mu santaane nga def ko ah, kon cigarette yàlla ko tere bañ nañ bañ ne tukkati cigarette bu ne su fa nekkee ba dee fekk ko si suñ ko robee suuf si dalay ulbatiwaat Macky Sall maa ngi lay taalal sama ah. loxo di la taalal sama loxo di la ñaan ndaw seetaat luy waali cigarette nga jël si sa matuwaay ndax njaboot gaa ngi bëgg a yàqu mun naa ne sax njaboot bi genn wàll gi na ndax cigarette li si li li loo xam ne lii loo xam ne loo xam ne lépp loo xam ne lu ñuy tuxu rek baaxul loo xam ne dalay taagul ak sa solo loo xam ne dalay jox baakaar jarul nga si jublu jarut kon doog nañu ñaax njaboot gi teg leen ci yoonu siraatal mustaqima xam ne ñun yàlla def ñu jox njaboot ne nañu teg suñuy njaboot ci yoonu siraatal mustaqima ndi saama boo gis bésu penc dinañ la laaj noo saamee sa njaboot bi ko dalee ci Macky Sall moom mi yore réew mi bés dina jot dinañ ko oo mu taxaw ñu koy laaj noo yore woon Sénégal kon donc mu mu law a ba si suñu borom kër yi ba ñun yaay yi nekk ci biir kër gi kon doog nañu xalaat bés boobu te waxtaan ak njaboot gi ñu tere leen cigarette cigarette baaxul santu yàlla dafa xaraam. alhamdulilah yéen ko dégg mag jar na bàyyi cim réew ñun ay gone lañ xamuñu bu ñu juumee nag mag ñi ñooñu war a gàggantil lu tax ñu war a gàggantil mooy ci lu mel nii dañuy wax ci lu leer du ñu gën a xamal àdduna parce que lii mooy àdduna yaay ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo nag di leen nuyu di leen sant di leen gërëm leen yàlla defal jàmm li ngeen bëgg yéen it seen liggéey gi yal na fa yàlla def eh, barke parce que loolu te amul barke rek yàlla defu si barke rek amul sens waaye maa ngi leen di ñaanal yàlla muy kattanal borom mooy kattanal doomi aadama yal na leen kattanal ci seen service yi. yal na leen yàlla may jàmm may leen salaam wasalaam ak a ñëw fonk këy. tey nag ma ñëwoon ci sunu conférence bi ren nag mooy suma première année may fekkee conférence ma di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ ko taxawee at yu bare ma rafet fekkee tey nag ma indiloon leen benn hadis bu am solo jëlee ci yonent di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xaf su Euh, yàlla nee na euh, yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam saxal leen nuyoo ci seen diggante yéen jullit yi ndax nuyoo mooy jàmm te nuyoo mooy indi jàmm te dañu gis ne ci suñu réew mi ñu nekk ñu ngi bëgg a suñu valeur ci diine boo di nag da romb sa moroomu jullit kon yéen nga ne ko asalaamaaleykum mu ne la aleykum salaam wa rahmatullah bu ñu def loolu dañuy rek. léeg-léeg ah Faal Saar tënk ko ab sax mun a am xadi loolu yëpp yëpp defaree noonu xanaa xamuñu ni ni yow mooy jàmm te ni yow mooy indi jàmm dañ dañu gis ne suñu réew wi ñu ne ñu ngi bëgg a perte suñu valeur ci diine ah. bu ñu gisee suñu ndaw rek war a jigéen kon yéen ñu ne ko asalaamaaleykum ñu ne ñu aleykum salaam wa rahmatullah dañu ko def dañuy romb rek mel mel gee mu ne ah Fane Sarr nga ne ah Absa mu ne ah Xadi nga dem sa yoon loolu bu ñu xanaa xamuñu ne nuyoo sunna la fay nuyoo mooy farata moo ëpp doole te dañoo eh, nga romb sa naw eh, moromu jullit nga ne ko yàlla jàmm yàlla nekk ci yow loolu moom la moo firi nuyoo nuyoo noonu lay firi yow itam nga delloo ko ñaan bi ñaanal ko ne ko yow itam yàlla yàlla jàmm jàmm yàlla nekk ci yow ak yërmande ak sutura xoolal loolu waaye ñu ngi bëgg a fekk suñu valeur islam boobu.

ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما فهم خافلون لقد أقل القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أقلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من ودا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره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 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون تكبير ما شاء الله maa ngi ziar bu baax Oustaz di ziar waa yàlla di ñaanal ñëpp di ñaanal seen président lay maama Camara yàlla bi ñu def yal na fi yàgg yal nañ ko yàgg fekkee te buñ ko fekkee yal nañ ko tal di ñaanal sama allah ji bu ñaawul bi yàlla yàlla bu gën fanam si kàttanu yàlla ak mbaaxam ci benn sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ah macha allah macha allah asalaamaaleykum comme ni ngeen ko waxee rek saa su ne rek lépp tamit ci biir Salam Vision bu ne Salam Vision rek la yoonu diine tey jëmm ji ngeen gis ni tey mu doon suñu yaay bu baax boo xamante ni dafay def lu extraordinaire bu ñu extraordinaire mooy dafay def loo xamante nit dafa gu ko ma gis ci sama bët léegi-léegi ba ñëpp jug apprécier loolu moo dafa jàng alxuraan ba génne ko ci xolam ba pare daal di kite ci alxuraan ba pare ci alxuraan ba pare ñëpp moom yaa boobu lay maa ngi lay delloo ziar bu baax sëñ bi. waaye ngeen maa ngi sant yàlla bu wér alhamdulilah. tey ñu gis ne nga jàng fi alxuraan ba pare ba fi lu fi kenn deful ba pare ah ñëpp yëkkati xaalis jox la ko nga yëkkati xaalis boobu delloo ko sa borom kër lan. waaw gannaaw ba yàlla julli cent bi tedd bi sallallahu alayhi wa damay sant sama waajur di sant sama borom kër cant gi yëpp nag ma di ko delloowaat sama borom kër moom mi nga xam ne moom ma may jàmm moom ma bàyyi may dem ca daara ja di jàngi alxuraan damay jóg sax fajar di jàng alxuraan te bu ma dee jàng damay taj bi di wax ca kaw te du ko déranger des fois damay taal bi di jàng samay saar mais du ko déranger lu may di ma encourager kon kooku lu ma am ci alxuraan rek moom laay delloo njëkkal gi moo tax ma yëkkati liñ ma joxoon yëpp ma jox ko ko. tey jii mu doon koo xamante ne xale bu ndaw la mu doon kilifa goo xamante ne mu jël alxuraan di ko def ci yéen tey nan ngeen diggaale ak moom ba tax ma yëkkati alxuraan di ko def ci yéen ba tax fi wax fi lu kenn waxut. defi lu fi kenn defut tey est que jotul tey ji yéen maanaam ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ginnaaw a ñëw ci kanam pour topp ci yéen tey yan conseil tey ngeen di jug ngir conseil. macha allah waaw dañuy wax rek ne suñu mbokku jigéen ñi dañuy waxal ñu góorgóorlu ci njàngam alxuraan mi ndax jamono ji toll na foo xam ne ku jàngul rek perte nga ndax alxuraan waxu yàlla la te waxu yàlla waxu nit mooy dañ mais waxu yàlla du dañ mukk ba àdduna sosoo ba léegi waxu yàlla du du mos a dañ. damay ñaax di ñaax sama bopp di ñaax sama mbokk jullit yi sama mbokk jigéen yi nañ jàngi arxuraan njàng yàggul te njàng mettiwul man ba may jàng foogoon naan duma man dara waaye may nafar rek gëm ko rek loo gis rek ngëm-ngëm la lislaam bi sax pour nga dugg ci danga ko war a gëm lépp looy def boo àndoo ngëm-ngëm ak loo bëgg sa rek du dem soo ko bëggee gëm ko rek billaahi di nga ci dem ba toll foo xam ne di nga dem ba tiim sa téere di ko jàngal sa bopp te kenn du la ko jàngal. man Codé Mbaye laa tudd. waaw kon macha allah yéen a ko dégg ki mooy ko dambay dégg ngeen li mu def jàng na alxuraan alxuraan bu dugg na ko def na ko ci xolam yëkkati na ko wax ko ba askan bi yëpp di ko dégg tey jii mu def fi loo xam ne nit mënu koo def mooy maanaam def na fi loo ne jàngat na ci biir jàngat mais sama yaay tey boo amee loo xamante ni mooy dañu kàddu tey ci réew mi jàmm war fee na mën a am. man de li may lancé président Macky Sall rek mooy ñun ay jaboot lañu. te dañoo jaboot te kenn ku nekk kër luy métti ci bopp kër gi rek muy métti ci bopp kër yëpp mu jàppale jigéen ñi jàppale jaboot ñi te wàññi dund bi man daal loolu laay wax man loolu mooy sama kii te woote jàmm te xam na moom mooy mooy jiitu moom la yàlla jiital ku yàlla jiital nag lu ne di nga ko dégg lu ne di nga ko gis waaye xam ne moo jiitu rek moom la fi yàlla teg di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal lu gën ci moom te defal lu gën ci ñun tamit loolu daal laa am lu may wax. alhamdulilah yéen a ko dégg kon nag dañ leen di gën a jaajëfalaat pare nañ de. pare nañ ci moom waaye pare guñ tam ci biir baas bi ndax ñu ngi feneen jëm feneen yaay jërëjëf. jërëjëf jërëjëf alhamdulilah. salaamaaleykum comme ni nga koy waxee rek tudd Salam Vision bu ñu la Salam Vision rek moom mbirum diine tey boo gisee tey jii ñu tegoo kilifa bi mooy tey suñu yaay yi ñoom seeni soxna tey boo xamante ne ñoo fi nekk tey di jàng alxuraan tey ñoom dañoo ñëw nag pour supporter si dañoo supporter si na nag ku nekk yéen nga sa téléphone di filmer waaw papa maa ngi lay ziar. waaye FM jàmm baax ñu ngi sant bu baax alhamdulilah tabarkàlla jii fii dafa doon loo xam ne tey lu ala daw la tey suñu yaay booy yi tey ñoo fi nekk tey di jàng alxuraan yéen ñu ngeen doon suñuy bàyyi te doon ñoom tamit seen i borom kër tey jii ngeen ñëw tey da ngeen di supporté si maanaam ñoom diine gi nga xamante ni incha allahu rabi yàlla su ma dogal na leen ba ngeen bàyyi leen ñu dem jàng seen diine gëstu seen diine ñu xam ci lu bari ba tax ñu toog fi tey jii di taril maanaam yéene gi lan la. waaw ñu ngi sant yàlla di seen bi sallallahu alayhi salaam di sant euh, Oustaz Mbaye mi nga xam ne moo yore soxna yi di jàngal te xam nga ne jàngal nag dafa jafe su dee ba am jël ay xam-xam sotti ko sa xolli soxna soxna yi kon nag kenn mënut am fayam. ñaan yàlla suñu borom fay ko ndax li mu def nii mu ñu tële la nga xam ne seen i borom kër xam ne jàng nañ am ñoo xam ne jàng ñu tawakal mais xam-xam si soxna day jafe ba amee ko loo xam day taxawal sa soxna si jaamu yàllam si am xam-xam diine xam ni mu war a joxee ci ay julleen ak ni mu war a taxawee ci ci jàmm yàlla yàllam kooku dañ koy sant bu baax kon Oustaz Mbaye d'abord moom la ñuy sant di ko gërëm di ko ñaan suñu borom yàlla taxawal ko fi yokk xam-xam yokk leeram di ñëw suñu teewaay fii rek pour gën a encouragé rek soxla yi la encouragé tamit yeneen soxla yi nga xam ne tamit dugguñu si ñëw dugg si biir njàng mi ndax tamit mbir mi gën a yaatu xam a yaatu si suñu soxla yi taal taal loolu rek moo si nekkoon solo bi yi encouragement la rek ñu ñuy wax rek ñu def ñu def ñu soxla parce que jàng du wees jàng di wees tax bi di nga war nga nekk di wees war nga gànnaayoo ba nga xam ne bu la sa yaay soo doom bu la sa doom laajee ne la waaw yaay li si diine yi lii lañ koy def nga mën koo tontu mën koo xamal loolu am solo la képp kuy borom kër su suma jigéen ñi war nañoo am gànnaay seen diine loo xam ne war nañ ko seen mën a jàngal seen i doom yi nga xam ne dañ di jigéen saa su nekk kon ñu ngi suñu borom euh, yàgg fi taxawaay bi di nag wax jigéen ñëpp dugg si daara yi jàngi xam-xam comme ni ma ko waxee rek xam-xam di wees. kon nag la papa dernier kàddu la hmm? dernier kàddu duñu dajee ñëwee comme ni ma di dajee ñaan ñëpp ci jigéen ñi képp koo xam ne ñëw nga fii te duggoo woon si daara ji nga ñëw dugg si daara bi képp ku dégg li tamit di jigéen nga ñëw dugg si jaar bi eh, jàng eh, ngeen gën a yaatal xam-xam bi loolu rek mooy sax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko rafet di ñaan yàlla fekk ñu teewaat fi déwén eh, suñu mel nii kenn gën a wute xam-xam kenn gën a wute ñëpp fekk ko fa taal kàlla ñëpp ànd ak tal ak xam-xam ak ak ak wér loolu mooy si kàddu yu mujj yi kon bëgg ci li ñuy bëggee mooy du ñu taay de kilifa yi ñoo fi toog dañu gën a xuus ñoom ci biir Salam asalaamaaleykum ba léegi ñu ngi ci mbir mi ci biir Salam Vision tey kilifa gii nii tey di toogal moom la fi suñu yaay boobu nga xamante ni jàng alxuraan ba pare ñëpp jox ko ko mu ñëw ba ci borom këram bi yëkkati xaalis boobu delloo ko ko papa mu ngi lay siyaar. waaw maa leen di fay maa ngi leen di fay ci bés bii euh, euh, bésu koor wi euh, lii dañuy wane ne rek islam day wane boppam wane boppam ci kaw. doomu aadama yi bu ñëpp boole doon benn ñëpp jël seen mbir teg ko ci seen boroom yaakaar jiital Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di déglu ay tere yi ak digle yi yàlla daf ñuy suturaal kon nag ñun bu ñëwee fii tey nit ñëpp dajale fii donc jullit yi rek ñoo fi daje dara bu xol yi àndee rek eh, dafay gën a yomb ci na ndax nit dañu naan eh, ana nit nit a nga ne la jëfi ak waxi démbam doon benn may ñii ma gis ni seen waxi démb ak seen waxi tey ci benn la donc islam dafa di loo xam ne ne moom mooy jàmm nit ñi lii mooy seen solution seen dund lii moo ñu jik lii mooy mooy suñu saafara képp koo xam ne nga nekk doomu aadama liggéey jaamu yàlla ni sëñ bu mag bi waxee képp bu ko def aussi tamit da ngay perte parce que diine rek moo lay mën a orienté ci plan yu nekk mooy régle solution mooy régle problème yëpp maanaam solution la solution ci gàncax gi solution ci nit ñi solution ci ma mala yi solution it aussi tamit suñu nekkin suñu amin ak suñu rafetal donc waaw comme tey jii donc tey jii maanaam mu doon loo xamante ni idée la te yaa ngi ci jàngalaate yaa ngi ci xamal àdduna tey ñi nga xamante ne dañu yor seen i soxna tey jii lan nga leen di dëggal ngir ñu jël seen i soxna yebal leen ci daara ñu dem jàng ji alxuraan. waaw comme ni la waxee noonu rek euh, soxna yi aussi tamit euh, ñoom ñoom ñooy taataanu islam ñoom ñooy euh, image yu parce que ñooy jur kii produire. donc boo ko xoolee kooku moom dañ ko war a dëkkal dalal ko sàmm ko respecté ko jox leen seeni cër euh, jigéen aussi tamit damay wax naan euh, da nga koy euh, fulal faydaal ko yërëm ko ndax lépp gis nga am di jabar di ko xoolee bëtu sa ndey wala sa sa sa sœur kooku problème du am doo ko maltraité parce que loo gis rek loolu foofu nga koy xoolee jigéen daal donc euh, moom mooy euh, andi meññeent mi baax mi bon boo déggee ñu naan jur ak lu mën a doon donc euh, bu ndey ja baaxul wala bu ndey ba amul taxawaay taxawaayu diine xale bi du mën a am taxawaay diine firnde na ko ci xale yi nga xam ne moom la ñu indi woon fii samay ay sët sant Nduur macha allah gis nga seen baay liggéey la def pour xale yi liñ fi tari ñëpp dañ ko rafetlu di ñaanal te euh, waajur bu doom ja baaxee euh, ëllëg bu fi dëndee nga mën a ñaanal sa ndey ak sa baay loolu dañ koy rafetlu. macha allah am na ñu ko bantee suuf ndondal lan moo tax nga ne soxna si ci kanamu mbooloo bi ñëpp taxaw te ñëpp taxaw nga ne ko yàlla boobu. loolu <laughs> aussi tamit. <laughs> ñoom ñoo koy commentaire ñoom ñoo koy commentaire nee nañ sa nee moo tax mu taxaw ci mbooloo mi daan na soxna si yàlla bu mu yàlla moom da nga koy ñaanal yàlla aussi tamit nan nga koy ñaanal ba mu yàgg moom i tamit mu taxawee neneen. loolu aussi mais mais mais loolu tam ah, waaw da ngay ñaan rek da ñaan parce que aussi tamit ay musulman lañu te polygamie lañu signé mais sant yàlla rek. waaw fàttali ma tur euh, man Basirou Sène laa tudd. Basirou Sène waaw bàyyi laa ci euh, euh, sëñ sëñ sëñ oustaz Mbaye parce que oustaz Mbaye ba mu jógee ci dëkk bi aussi tamit sama loxo bii la tàlloon donc ñu ko sant di ko gërëm xale bi li mu def fii eh, eh, yombul jeune te gis nga euh, liggéey bi ñu def macha allah ñëpp gis nañu résultat yi donc moom tam di ko ñaanal famille yam e, e di ñaanal mboolem daayira yi nga xam ne coordonné leen fii fédéré leen indi leen fii ba ca CICES ba fii loolu dañ koy rafetlu nit ñi kenn moomu leen surtout nga di leen woo loo xam ne ci seen diine loo xam ne rawukaay la loo xam ne ne bu ëllëgee ay rëccu du ci am yàlla nañ ci yàlla musal ci loolu di leen sant yéen tamit ñu nga xam ne yéen a wu communication bi yàlla may leen ngeen dema dema dema dem ba nga xam ne seen liggéey dina ëpp fi ba ngeen am seen ay plateau am seen télévision yaa ngi may dégg te képp koo xam ne ñëw nga fi aussi indi fi feebar yàlla na ko yàlla dindi bi yàlla nañ yàlla eh, may wér ak wér la bëri leeg barkeel mucc xeewal loolu rek moo am macha allah yéen a ko dégg noonu la suñu bàyyi wax te dara du sedd ndax ñu ngay joxe melaay doon ya ci biir kan ak Salam Vision xaar ñu dem jëli ji loolu leen ko tegal ko ci table ngeen mën ko seetaan ne yal na yàlla jàppale leen yàlla wéral cër yi yal na yàlla barkeel daara ji allah macha allah kon lii am na solo te bés yi daan na neex mais tey dafa ala dal ne comme niñ ko waxee di gërëm mbokk yi macha allah wuy si sant nañ leen gërëm nañ leen lii dara fay ko allah di gërëm suñu yaay. yaa ci ne mbergaan jóge ba Kaolack yaa ci lay ziar di ziar waa Kaolack yëpp macha allah macha allah mbergaan kontaan nañ ko seet na maam soxna nga ne ànd ak délégation jóge ba Thiaroye ak suñu yaay suñu bàjjan jóge fu waa Cambérène ñoom Ousseynou ñoom Ibou ñoom Ablaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak soxnaam Xadi jóge ba Italie moom it macha allah programme bi set yàlla laa leen di bàyyee yàlla ma leen yàlla fayal bu defee ñu woo yaa Awasi yaa Seyda Fatou maam ñu fa sam dëgg yal na fii mu dëgg ñu koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal imam ndaw yal na yàlla mu dal faram dëgëral taxawaayam barkeel li ñu wax ci intérieur ak waa jàkka yi allah di ziar suñu imam Basirou Sène moom it taxawaayam rafet na macha allah ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp yaa Seyda Kër Mbaye borom neex ji ji neex na macha allah jàpp naa ci jël waaw ah, macha allah moom naa jëm moom taa jéew waaw waaye ñëpp gërëm nañ leen ñu si ñëwee ñëpp gërëm nañ ko macha allah di gërëm waa Jalle sama lépp waa Sokone Géza ji di ko jox amat jël macha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah di gërëm ja suñu xarit suñu wóoree macha allah moom ci jotaay bi kontaan nañ ñoom Pànjaay ñëpp waaye di la sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah bu rafet ñëwatuñ li doom ñëw fekk si ñoom Basiru seen ak njaboot kon Basiru jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax yàlla mi am pay yàlla fay ñuy sant nag chef de quartier bi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وخاليا ضارعا وعينا باكية وبدنا سائحا سابلا ويقينا صادقا بالحق سادعا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وحامدا وإيمانا صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وصلنا إلى الفقر مستقلا بعبادة خالصا وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طيعها اللهم يا زاهدا خير الخالد ويا غريبا خير البعيد ويا غالبا خير المغلوب اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب واغفر لنا ذنوبنا وصل رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو غيرك يا الله صلاة تفتح لنا بها أبواب الرداء ورزق وبركة ومغفرة وتيسير وترق بها أن أبواب الصبر والسقاوة والدلالة والتقية وتصل بها ولي نسر أنت ولينا ومولانا أنت ولينا ومولانا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنب إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددت ولا كرما إلا كسرت ولا دين إلا قضيت ولا مريض إلا عافيت ولا ميتا إلى رحم ولا خدة إلى صلاة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا في سائل آخرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وحق اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها والنور الأبصار وديائها وقوة أرواحها وسرابها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 bu ma gën ngir taxulaa bon ngir Mamadu Lamin mooy sama gën euh. Bienvenue sur Salam Vision